السلام عليكم ورحمة الله مكي نيو لين نيو دي لين زيار لين بالو حق نيان برم سبحانه وتعالى بوري نيجا حديث تاي بدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت الراوي أبو بكر نفيع, نفيع بن الحارث وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis bi ne bàkkaar bu mu mën doon yàlla dina ko yéexe ba yowmal qiyaam maanaam bàkkaar bu nit bu def fañ fañ koy réglé di ko ko attee moo yowmal qiyaam ñu teg ko daan yañ ko cay war a teg bu dee yàlla da koo fas yéene tegug daan ba mu des bàkkaaru mbewte ak ku dog ñaari waajuram ak ku dog ak mbokkam ñii seenu bakkar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na seenu mbugal fii lay tàmbale ci àdduna avant ñuy dee xadis bi ko mooy abu bakara abu bukra nafi euh, abu daawud ak tirmidi ak ibnu majja ñoo ko génne bu ko defee ñu bàyyi xel bu baax mbewte yal nañu ci yàlla musal bakkaar yi gën a mag ci la bokk waaye nit buy bew it dafa xamul boppam xam nga léeg-léeg doomu adama day réere boppam ba ñun doomu adama ñi ji réere seen bopp ñoo bari ba bu ñu gisee nit ki xam boppam ba teg boppam fi mu war a teg boppam mooy yëg ni du dara tekkiwul dara amul dara xamul dara dañ naan ko modeste la fekk modeste boobu mooy ki ko def mooy kooku da duñ ko tuddee modeste mooy dañ koy tuddee ku xam boppam kooku mooy ki xam boppam ki xamul boppam mooy kan mooy ki mooy ki nga xam ni moom ba léegi xamul ne moom amul dara xamul dara mënul dara tekkiwul dara ab doomu aadama la boo xam ni yàlla moo ko fi teg muy di jëmm ju doyadi ruux ba rek mooy li am solo ci moom kooku ki xamul loolu kooku mooy ki xamul boppam bu ko defee day làmboo ak rëy mbay rëy googu mooy dem ba yóbboo ko ak mbewte mbewte mën na judd ci xam-xam ma mbewte mën na judd ci daraja mbewte mën na juddu ci alal te judd dina te siiw dina ko def waaw fexetoo nit nit doomu aadama eh, nekkoon nit koo xam ni comme nit ñi rek di lekkanoog nit ñi di naananoog nit ñi di defanoog ñëpp xëy ñu teg ci maanaam ndoddam ay ndombal tànk yu xaw a ñàkk solo yu xaw a am solo tuuti rek mu daal di changé bu changé kooku daa xamatul boppam ta xamatul boppam bu xamoon boppam na mu meloon lay maanaam fa mu ne woon du fa jug waaw kooku mooy bewtu yenuñ ci yàlla musal bakkaar bu bon la dog ñaari wayjur li ci yàlla dénkaane yëpp lim ñu toppaloo mooy ñaari wayjur ñu tarbiye leen bagg leen soppi leen di leen ñaanal yàlla gudd fan ak njéggalu yàlla buñ leen dogee nag teg teg seen digal te defuñ li yàlla digal ci ñun kooku mbugal gi fii lay tàmbalee ci àdduna bala àllaaxira ci dog mbokk tamit hakada dog mbokk it ci mo xam ci mbokkal baye la mo xam ci walu nday ak baye la moo xam ci mbokk mu man ti don dal bu ko doge mom ta tay ko ko ki mbugalam yon sax neena fi lay tambale bala yowal qiyaama kon bakar yoy bakar yi mak yi gëna mak ci la bok yal ci yàlla musal qul qawli hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh